قال آه، الشيخ سيدي عمر بن سعيد الفوتي الطوري القروي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به في الفصل الخامس من كتابه النفس لنا حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم وروى أبو داود والنسائي مرفوعا كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت وفي رواية وفي رواية النسائي من يعول kon juróomeelu fi nga xamante ne foofu lañu tolloon mhm. euh, Cheikh Omar radiyallahu ta'ala anhu kon mi ngi indi ay wax wax yu am solo yoo xamante ne nit ki daf ko war a bàyyi xel rawatina su fekkente ne day euh, maanaam ne dafa war a fexe nu muy sàkkoo li nga xamantene mom la def manam wara sakku li nga xamne mom moy mooy manam mhm. maanaam koy mu koy na bu fekente dafa yore njabot mhm. mu ne lijjanti ba para tamit manam mu xol nu mu wara organiser adunam ci walu jaamu yalla ci walu wuti ji lu mu dundé mom ak njabotam ak yu mel noonu de telle sorte que warul préoccupé wu ci benn bayyi benen au moment où dundu nit dafa gatt ana nan la wara def ba organiser wu lu nek mu tek ko place priorité par priorité ci loolu la nekkoon euh, ba mu doon wax naan segam ki nga xamante ne moom moo sàggane njabootam ndax dafa nekk ci jaamu yàlla kooku la ñuy critiquer mhm. kon waxuma la ki nga xamante ne dafay nekk ci mhm. maanaam yu amul njariñ ay foo ay caaxaan mhm. dégg kon loolu eh, ba tax du toppatoo njabootam kooku moom waxuñu la ko mhm. mu ne kon rawa solo na abu daawud wa nasaa'i rahmatullahi alayhi ma marfu'an hadis buñ jëlee ba ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu wax ne doy na bil mar'i ci nit isman bakar bu ko doy sekk problème yowmal qiyamati an yu dayaa muy neenal man yaqutu ko xamantene mom mom lay dundal mhm. wa fi riwayati an-Nasa'i am na ci riwaya imam an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala ci sunanam man ya'ulu la wax maanaam kafa bil mar'i isman an yudayya man ya'ulu kafa doy na bil mar'i ci ci cam isman bàkkaar bu ko doy sëkk problème yawmal qiyamati an yudayya ci mu neenal ak man ya'ulu koo xamante ne moom moo ko njaboote mm-hmm. wa rawa solona ibnu Hibbaan asibiti moy mooy ki nga doon wax sax asibiti Ibn hibban fi sahihihi saxiixihi allah ci sahiham sahih Ibn hibban mu ne anna Allah naka buur yàlla taala kawenam sa'ilun aji laaj la kulla raa'in yenent bi wax moko wax sallallahu alayhi wa sallam mu ne yàlla day laaj kulla aji laaj la kulla raa'in képp sàmm amma waliif lépp lo xamne sar'ahu daf ko ko sàmmloo xafidahu ndax li ko yàlla sàmmloo sàmmoon na ko téye na ko aar na ko aw wala boog dayyahu daf koo neenal daf koo doyadil da ko ñàkk a bàyyi xel da ko sàggane xatta mbéte yasala dana laaj ar rajul waaja an ahlihi walli maanaam wal an ahli baytihi ci mbirum waa këram wallahu a'lam yàlla rek a xam intaha fal wax ja wa qaala wax na aydan ba tey maanaam yëpp ay nettali kan la mhm. al imam Abdul Wahhab Ash-Sha'rani rahimahullah léegi nag mu ñëwaat ba tey ci ay waxam mu ne waqaala wax na ba tey ayban eh, ba tey mu ne axada maanaam ci al-uhudul muhammadiyya yooyu noonu ah waaw mu ne waqaala wax na ba tey moom Cheikh Abdul Abdul Wahhab Ash-Sha'rani rahimahullahu ta'ala ci al-uhudul muhammadiyya ba tey mu ne axada jàpp na alayna ci ñun al ahdu kóllëre al am ba ji matale min rasulillahi tukkee ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam allan an laa nekkat ñun de allah najma an ne laa najma duñu dajale min az-zahabi ci ci ci ci ci wurus wal fiddati ak xaalis xatt benn yoon nisaaban lu toll ak nisaab nisaab mooy fi alalu nit war a toll pour mu war a mën a génnee asaka su fekkente ne or la quatre-vingt-cinq grammes la su fekkente ne xaalis la six cent grammes la ne nag euh, loolu nag lañuy ñuy bu fekkente ne suñu jamono la par exemple nga xamante ne euro yu ñu yor dollars yeeg yooyu c'est ci ci ci ci or lañ koy natte kuur kuur bi ci or la donc ñun ci or la ñuy natte mbir moom suñu xaalis yi ñu am par contre nag bu dee ay takkaay wala leneen loo xamante ne am nañ ko mu nekk pièce xaalis boo dañ koy natte ci xaalis li mu doon dëgg-dëgg bu voilà Je mu ne compte bi di ci rek ci à peu près instant ni euh, comme or bi parce que comme euh, il y a deux trois mois gramme or bi c'était ça tournait entre 20 21 et euh, euros gramme mais léegi dem ba 39,89 ci euro ndax cours bi dafa yéeg kon ci kaw lolu soko naté donc dans le passé c'était 1700 euros environ mais légui war na yegg ci 2000 euh, euros à peu près. donc légui moy ni sabbi amo droit. voilà dal euh ñun mooy yeneen bi sallallahu alayhi wasallam kóllëre gi ñu fassante ak mom moy né duñuy dajalé alal lu tollu nonu ma di diko dajalé nonu rek mi ngi ñew ci di leeral. Mhm. mu ne illaa lu dul in kaa in kunna bu fekkente ne nekk na ñun nafiqu di wóolu min anfusina ci suñu bopp bi an ci ne nuxriju dañuy génne zakataha azakam maanaam ne azaka alal lu toll loolu bu ñu leeree ne wóor na ñun ci suñu bopp ne ñun te nayuñu bu ñu yoree lu toll noonu ci xaalis tamit du tere bu heure joxe azaka jotee dinañ ko génne te sàgganuñu ba pare tamit dinañ xam nan lañuy nat nan lañuy nan lañuy calculer jours pour génne asaka parce que ñu bëri dañ koy calculer ci ci période solaire bi alors que du loolu ci weeru lunaire yi lañ koy wala calculer à partir de jour bi mu mat mom ngay xol 1 an après ci jour bobu mais dans le calendrier lunaire lu am solo la bu ne wa in lam nakun doonte nekkuñu na la di xam anna naa nekkat ñun kan nuxriju haa dinañ ko génne kazalika ni ki noonu iqtasarna dañuy doylu fil jam fil jam'i ci ah, dajale alaama ci lépp loo xamante ne nekk na doonan nisaab ji lu gën a tuuti nisaab googu maanaam bu ñuy dajale suñuy alal daal lu gën a tuuti nisaab rek la ñuy dajale wa yaxtaaju te dana aajowoo man yuridu képp koo xam ne namm na al amalu jëfe bi hadal ahdi ci gilég kóllëre ala wajhi suluki ci anamu sóobu alkaamil ba di aji mat maanaam ah maanaam ala ala wajhil kaamil la war la doon maanaam wax ji moo dafa jaawat la dafa ci édition bi la maanaam ala wajhil kaamil ci anam ji mu gën a mate war na ci moom assuluku mu sóobu ala yadi shaykhin ci loxol sëriñ mursidin boo xamante ni aji yara aji aji la aj jubalaate la saadiqin koo xamante ne ku dëggu la kooku moo mën a jëfee lii kóllëre gi hmm. maanaam fexe ba doo dajale lu dul lu tolloog nisaab lu dul lu gën a tuuti nisaab ba noppi doo booy dajale alal jooju tamit doo ci wala boog boo ko dajalee nga mu leer na ni balaa man maa dajale lu toll noonu pour mën a génne azaka bëgg naa génne azaka donc dinaa dajale lu toll noonu mais damay respecter toutes les conditions yi war pour ma mën ko dajale ak yu noonu ba pare tamit bu heure ba jotee ni ñu ko war a génne noonu laa koy génne parce que azaka lu important la tey bu fekkente ne tey tey tey la ma azaka ji war bu ma génne ci lu dul damay am bàkkaar parce que parce que ñi ko soxla du sama alal jàmbur laa ci yi àqu laa ci yi tey tey tey laa ko war a génne tey tey tey naa def lépp pour génne fekkente na awma ngant am naa ngant wa loolu benn affaire la ma mu ngant déedéet dama bàkkaar legi mu ne nak baña dajale alal ju tollu nonu te man ko niki nonu baña ah a eh, eh, manam eh, niki nonu buma bu genn mu mu leer man dama ko wara genn te dana ko genné noonu mu ne loolu kiko man moy ki nga xamne dafa sobu ci loxol serigne su mat bu deug wa illaa lu dul lool rek falaa yasummu du xeeñtu sax lil amali ci jëfe bi ci bile kóllëre raihatan xatga maanaam xetu jëfe bile kóllëre du ko du ko bal li fi nekk yaju ma day dajale alal bi wayam naa ba pare mu xañe ko wa in axraja bu génnee sax shay an dara min ha ci alal jooju fa huwa day fekk ne loolu li illatin ngir ab sabab la boo xam te ne qaadixatin bu yàqu la fii ci ñu nangu jëf jël maanaam même bu jotee ba génn azaka sax day am cause boo xamante ne mooy tax ba ba ba ga maanaam du du jëf gi du du nangu parce que <laughs> da koy joxe ci anam goo xamante ne xëy na da koy joxe ci anamu xeebal parce que ki ngay jox azaka donc koy war a jox tout en sachant du yow yaa ko koy jox mayoo ko saraxoo ko defoo ko dara c'est son droit xaqam la niki noonu voilà te loolu yëg-yëg boobu nga war a am. yàlla moo ko jaaral la sa loxo. voilà nga woo ko transmettre. voilà intermédiaire ko. waaw kay ak yeneen ak yeneen yi ci aju niki noonu waroo ci ngistal waroo ci déggtal par ñu naan oh diw macha allah ah alal ji mu bare lu toll nii lay génne ci asaka macha allah wala diw de jàmbaar la moom fexe na bay day génne asaka yooyu yëpp doo ko ci. parce que yooyu bu ci amee rek jëf ji dootul yàqu dootul baaxati ndax yàlla li muy nangu mooy li nga def ngir moom <laughs> voilà ak yeneen dégg nga mu ne kon nag fasluk sóobul yaa axi yow sama mbokk ala yadi shaykhin ci ci loxol ab sëriñ xattaa mbete yàtte mu ko mu feral la an mahabbati dunya wëllif naam fa gaa moom sopp àdduna la maanaam mooy e, e, lu ëpp ci nit ñi bu ñuy màgg dañuy màggaale bëgg àdduna <laughs> waaw bëgg àdduna ak li ci wér <laughs> léegi nag sëriñ bi moom moo lay feral ci loolu dégg nga mu ne yaa ni maa maanaam maa ngi ci namm limu mu li muy tekki mooy anil may li dana la feral ci jéng ilay xaa jëm ci àdduna is isa is ndax kat adduna àdduna laa tubxadu deefu ko bañ fii zaatiha ci jëmmam wa innama li am ba des mooy almatlubu liñuy sàkku azuhdu mooy dëddu fil mayli ci jeng ilay haa jëm ci àdduna laa fil mayli du caageen jeng lisaati haa ngir jëmmi àdduna isan kon bu boobaa loolu lay tekk wa kaana te nekk na azuhdu dëddu àdduna googu matluuban dañ koy sàkku fi zaati haa ci jëmmam li ma jaasa ah waaw ndax li mu dagal na non maanaam ah, ah, iza kaana zuhdu maanaam bu fekkonte ne dëddu àdduna ji matluban dañ koo sàkk fi zaatiha ci ci ngir jëmmam lama jaaza konontoon doonul dagan li ahad ñeel kenn imsaak xaaja téye ko téye àdduna wala qaa'ila bi zaalika teg amul kenn ku wax loolu ci borom xam-xam yi rahimahullah maanaam kon àdduna du ne da bàyyi àdduna du lool lañ la wax mais liñ la wax mooy bëgg àdduna loolu lañ la wax maanaam ci gàttal daal mooy li doon wax rek boobu ci buntu bi début ba léegi mooy li ngay am na nekk ci loxo yi ci banque bi ci et cetera ah, ci këyit yi tout ça mais xol bi moom bu ci àdduna bi nekk mu ne fa innal mahzuru li ñuy moytu ndiku inna maa li am ba des mooy huwa moom mooy fi fii imsaakiha mooy ah ci jàpp ko jàpp àdduna téye ko di ko wut am ko ma ma mahabbatan ngir sopp ko nag li zaatiha ngir jëmmi àdduna ndax is ndax lan huwa moom allazi mooy li nga xam ne raw dana fàccee minhu ci moom ah dana tukkee minhu ci moom alxijaabu ah li nga xamante ne moom mooy kiiraay gi parce que bu nit ki su bëggee àdduna sopp ko ngir jëmmam maanaam jéng ci kon loolu liko yalla na taw moy day am kiray bu dox digganteem ak boromam parce que motax tax loolu la Cheikh hadji malik do wax radi Allah walaw laa sukunul alamin an ghayri rabbihim ra'awhu ayanan wal ilahu qareeb budul won le fait que nit ñi di sukkandiku aduna bi manam di xol aduna bi bëgg manam di préoccupé wu ci leneen seen xol préoccupé wu ci leneen lu dul yàlla ah wala laa sukuna alaman ah ren ay rabbihim bu dul woon lool kon ra aw ayaanan danañu gis yàlla ak seeni bët ci jéebéer ndax lan wal ilaahu qaribu ndax yàlla dafa jege bu dul woon nit ñi maanaam nit ñi xam nga lu tax gisuñu yàlla li tax gisuñu yàlla <laughs> mooy préoccupé wu bi ñuy préoccupé ci leneen xam nga tey boo boo toogee léeg-léeg léeg nga toog xam mos na laa dalam déet en tout cas dal nañu bari ñoom di ah, nga toog nit romb la te doo ko gis parce que sa xel mi ngi ci leneen yàlla nag li tere nit ñi gis ko loolu la muy attachement bi ñu am ci leneen lu dul yàlla moo tax nit ñi biñ ko gis moo tax bu ñu demee àjjana foofu dañuy gën a mat foofu danañ ko gis waaw waaye <laughs> ndax waaw maanaam par contre loolu degré bu gën a fort la par contre gis bi ñuy wax ne dañuy gis yàlla nag par contre bu ñu eh bàyyi bu tokki bu bari bi dégg nga léegi euh, xam nga nit ñi bu ñu waxee nit ne nit yàlla yi par exemple dañuy gis euh, ñenn ñi ne dañuy gis yàlla gis googu ci xool na maanaam mooy xool xool bi mooy gis yàlla màggaayu yàlla loolu lay tekki tekkiwul ne dañu koy gis ak bët mu nekk lu déedéet yàlla déedéet loolu mënta ne ci àdduna comme ni koy yeneen bi wax sallallahu alayhi wasallam i'lamu annakum lan tarawna rabbakum fi hadhihi dunya xam leen ni ci xadis bi nekk saxiix imam muslim rahimahullah xam leen ni seen borom doo leen ko gis fii ci kaw suuf amul yàlla li boo déggee ñu ne gis yàlla mooy gis xol lay tekki maanaam aarifu bi day dem bay mën a gis yàlla xolam loolu lay tekki maanaam mooy lan mooy màggaay yàlla lay gis ci lu ne jëfu yàlla lay gis ci lu ne melo yàlla yi lay gis ci lu ne loolu lay tekki ci biir loolu ñu nekk ay degré am ci ñoo xam ne dañ naan ma ra'aytu shay'an hatta ah, illa ra'aytu Allah qab ah, ba'dahu ma gis dara lu dul ne dinaa gis yàlla ci ginnaaw loolu maanaam moom bu gisee benn mbir bu ko gisee après jàngat yi mu ciy jàngat moo tax màggaay yàlla lay gis derrière kattanu yàlla ndogalu yàlla man-manu yàlla xam-xamu yàlla sañ-sañu yàlla et cetera maanaam melo yàlla yi lay gis derrière am ci ñoom ñoo xam ne dañuy yegg ci beneen degré ma ra'aytu shay'an illa wa ra'aytu allaha du ma gis dara lu dul gis yàlla ànd ak loolu maanaam moment bi ñu gis mbir mi ci la ñuy gisaale yàlla am na naan ma ra'aytu shay'an illa wa qablahu du ma gis dara lu dul yàlla laa njëkk gis doo gis du ñu yéemu ci mbir ba pare am na nag ñoo xam ne ñi yées yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nañ yàlla boole ci groupe bu mujj bi am na ñi yées ñëpp ñëpp ñëpp mooy ñi nga xam ne ñoom bu ñu gisee mbir mbir ma rek la ñuy gis duñ ci gis yàlla abadan moo tax ngay gis lu ñu gis rek dañuy yéemu ci ki ko defar concepteur bi maanaam <laughs> concepteur humain bi maanaam l'être ñu bi concevoir affaire boobu ci la ñuy yéemu rek dootu ñu yéemu ci màggaayu yàlla duñu gis sax ne yàlla moo bind nit kooku ko def loolu ñoom duñ même degré bu sew boobu sax duñ ko ci am ñoom fii rek la ñu nekk ci kii moo aay ci ñii ñoo aay ci ñii mën nañ ci ñii nangam yàlla nag ana ana yàlla. kooku kan moo ko may xam. ko may kattan ku ko may xam-xam kan moo ko may man-man et cetera lan moo tax yàlla tànn kooku te tànnu la yow sax yow mi yéemu. <laughs> ak yeneen ak yeneen mais subhanallah gu nit ñi demee ba fer yàlla daal yàlla daal wax na dëgg yàlla nee na wa ma qadarullah xaq qadrihi dëgg dëgg nattuñu yàlla dëgg-dëgg niñ ko war a natte joxuñu ko gëddëm waaw ala kulli xaal euh, kon loolu mooy dégg nga loolu mooy kon loolu mat naa bàyyi xel maanaam kon sopp àdduna bi ci loolu lool moo tax ñuy wax maanaam euh, waaye waxuñu nga bàyyi ko nii mais dañ ne la bu mu la préoccupé ba doo nekk ci yàlla loolu tamit ay niveau la mu ne wa cheikhu wa sox kon loolu kiiraay la maanaam kon bëgg àdduna gi ngir jëmm boppam day indi ak kiiraay was was soxoni ki noonu day indi ak maanaam nay wal buxlu ak beneen xeetu nay ñaari xeetu nay lañ soxo ak buxlu en fait buxlu mooy naya dépensé mooy naya joxe loolu mooy buxlu ak soxo nag mooy nay naya def lu baax moo gën a doy mais day jóge ci bële parce que nit ki le fait que du joxe bu jàppee ne bu saraxee masalan day day perte xaalis bi moo tax muy may def lu baax pour moom bu defalee kee lu baax après day day day day day moom day perte wala di kooku da koy dab mbaa mu raw ko après loolu moo tax mais ku naye man moo tax alquran ne wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun ku fexe ba nay bakkan nga jële ko nga dindi ko ñooñu ñooñu tax ñooñu dañuy mën sax am dara jox ko ñeneen ñoom ñu toog yor lu dul 10 jël 10 euros jox ko keneen toog waaw dégg nga mhm. mu ne mune kon kon wa innamal matlubu kon mune kon fayumna fayumna nau fa def na xañ al abd han fayumna kon lola day xañ al abd jaam min ikhraj zakat yi ci génn azakam waqat deug deug xalita jumna fi hada al amru ci bi le mbir qawmun aw nit fataraku ñu baye jam jam ad dunya dajale aduna aslan ci luñu ñu wara war asan ak ci ci jëmmi boppam faxtaajoo ñu ajo ila su'al an-nas ci laaj nit ñi ta'ridan ci diko garal ci garal wa tasrihan ak ci diko leral lolu moy lan lolu moy am na ñoo xamante ne dañoo sax aduna nak legi manam ñom ñak comprendre lolu mm-hmm. tax nañu bayyi aduna complètement mm-hmm. wa legi nak ñom dañuy aajowoo dem di laaj nit ñi mo xam dañ koy wax ci ay maanaam ci ay junj mm-hmm. naan waaw moom day naan maanaam daal wax waxin woo xam ne daal mooy soxla nañ ku leen jox dara mm-hmm. wala boog sax ñu leeral ko mm-hmm. walaw annahum mu fekkonte ne ñoom salakoo soobu woon nañu ala yadil ci loxol sëriñ si xataa yaftamuhum mbete ñu daal di leen di feral anil may li ci jéng ilayha jëm ci àdduna la jamaaw konantoon doon nañu dajale alqanaatira alal yu lu baree bare xen xen xintaar nag maanaam mooy qanaatiir mooy pluriel xintaar maanaam mu def na koo natt daanaka ci montagne xaalis mhm. mina mina mina zahabi ci ay ci ci ci ci ci ci wurus mhm. konontoon bu fekkoonte ne yaru nañ ci loxol sëriñ si xam nga kon lu ñuy def mhm. kon ñu bàyyi àdduna xam nga lu ñuy def dañuy dem wuti ji affaire àdduna yi mais bu ñu ñëwee comme que ñoom àdduna soppuñu ko bëgguñu ko lu baax rek lañ ci jublu bëgguñu ko loolu nag bokku la nga koy woote woo ko moom yomb na ne man wuy lii man àdduna rek man àdduna lu ma damay wut pour di def lii bu ma amee alal nangam laa ciy def loolu moo gën a yomb mais mu nekk caractère bu dëggu ci nit ki loolu moo jafe waaw nit ki ku baax la ak nit naan nit ki muhsin la ku ku rafetal la ku sell la yooyu loolu woote woo ko sa bopp daa gën a yomb moo tax ngay gis kenn ku ci nekk muy muy woote woo loolu man de yàlla rek ka ba tax a def man de nàngam rek man de muhsin laa damay sel damay rafetal man de kii yooyu moo gën a yomb loolu woote woo moo gën a yomb par contre na bu doon loolu la rek kon kenn ku ci nekk dina wax ne ku baax la man de ku baax laa man de ku bëgg la mais loolu dafa simple li gën a jafe mooy yàlla ne déjà rek nit ñi nit ñi rek d'accord ci kii yàlla rek ko tax ki kat ah ki kat lu sel la bëgg ki kat lu bax la bëgg ki mom du dugg ci ay tiaxat ki du dugg ci yu bon mhm. kok muy lool déjà mo gëna jafé mhm. après mu dess benen caractère moy mhm. yalla ci wax ko ci nit ki parce que nit ñi mën nañ ko wax fekk lu dëgg dañ ko ñor mais déjà étape bobu dafa jafé déjà étape bobu dafa jafé mais lolu bala nga koy man deug deug mu nek lu deug kooku munul ñak nga jaati loxo serigne serigne ak buñ ko waxe comme niñ ko waxe won ci jotay yi passé ku mat serigne tax ñu wax ñu ñeneen euh, ñu ku tuddu nangam wala ku sant nangam dedet serigne ku mat ku mat waaw mën na sant nonu mën na tudd noonu comme mën na ko bañ tuddu mën na ko bañ sant jeex na mu ne nak ah konontoon li ñuy def bu ñu cooboon ci loxo yi dañuy wut alalu àdduna mais buñ ko wutee dañ koy wut ci dañ koy wut dépenser ko maanaam dañ koy wut ngir yàlla ngir xam but boobu te ànd ak loolu du leen détourné loo ci bëgg àdduna du leen yóbbu ci bëgg àdduna du leen du nekk kiiraay ci ñoom seen diggante ak seen borom subhaanahu wa wa an anfaqohaa te danañu ko dépenser alal masaakiini ci way ñàkk wa xasala te danañ am lahum ñeel leen xayru dunya yiw adduna wal axirata ak alaxira waqad xukkiya nettali nañ an na faqiran ne dafa am ab taalibe boo xam ne daxala dafa dugg zawiyatu zawiya saydi ibrahim al matbuli rahimahullahu taala wa radiya anhu moom mooy sëriñu ñoom saydi ali al xawaas maanaam sëriñu ñoom sëriñu imam Sha'rani mm-hmm. ñoom radiallahu anhu kii mooy seen sëriñ d'ailleurs bind na ci ben téere bu tuddee noonu axlaaqul maqbuliyya voilà bind na ci ben téere voilà bi radiyallahu gon kon moom ben benn waay dafa ñew nak ci zawiyam ñew fa sa mu tok lil ibadati ngir jaamu yalla laylan guddi wana haran ak bëccëg wa taraka mu bàyyi alkas fagu wa kanat nekkon a serigne bi la bugul won won lil faqiri ñel talbi yi adamul kasbi ñuy ñaka liggey di ñak wut lu ñu dundé ñu fa lahu mu ya waladi yow sama dom. Lima la tahtarif ana lan motax amulo ben benn wa taqumu te ngay taxaw bi nafsika ah? wa taqumu ngay taxawé bi nafsika ci sabakat wa tastaghni lutax ngay doylo bu boobaa da nga doylo da nga da nga womal an hamli naas wëllif yanu nit ñi nit ñi la ka ñeel atta ñam manam kon nit ñi dinañu ñew duñu la do soxna nit ñi di ñew di la indil lo dundé dal fa qala mun ya sayyidi ya sama sama sang lamma dakhaltu bima duggé duggee zawiyatukum sen zawiyé bi ra'aytu dama gis fi tilka taqa ci euh, euh gis nga peggu jakk gi fele ci kaw non dama fa gis wala ci ci peggu jakk gi nonu ya bo matan am ya manam am picc mo xamantene perantal la mu ndaw bo xam dafa silmaha la tutiqu amul kàttan an tasa ci muy daw misla ma kem ni nga xam ne tasa noonu lay dawee ak tuyure yeneen picc yi war a aytu ma gis soqaran ak picc mu mag moo xam ne moom yati ha da koy dikkee kulla yawmin bis bu jot bi qit'ati lahmin ci ak dogu ndawal dogu yàpp yarmiha mu koy sànni la ñeel ko fi taqatiha ci tàggam ba dégg nga ci peggu jàkk gi ci tàggam gi mhm. fa qultu ma ne ko ana ma ne nag man ma ne ana man de aw laa maa gën a yeeyoo bi tawakkuli ci wéeru alallaah ci buur yàlla min haadil buumati ci perantal nii nii fa qaala lahu mu daal di koy wax saydi ibrahim saydi ibrahim almatbuli rahimahullah daana daane ko wali ma jaalta ana lan moo tax ngay def nafsaka sa bopp buumatan am yaa buumatan am ya manam nga def sa bop parental mom nga xam ne daa silmaxa ma ngi ñew xara rek la tuteeku do man antas a ah, astaghfirullah wa après fa qala mu daal wax na ah, ah, wal bok mu ne ko mu ne mu ne hal laa ja'altaha lu tere won nga def sa bop saqran manam picc mu mag mom nga xamne takul day lekk wattu ta'amu muy dundal albumata manam parental momé fa qala al faqir faqir bi manam talibé bi né at tawbatu tuub na légui wa kharaja mu dal génné lil kas ngir lu mu fago dané dané dafa am ben way ñew dugg ci ci zawiya bi talibé bi mu ñewé ñu gis ko mu tok mom fu guddé beccëk ci jakk ji lay nek nit ñi dék léegi nag bu jeeg sëriñ bi nag ne ko mais yow xale bi sama doom yow sama doom lan moo tere nga dem wuti métier bu ko defee di nga ci faj say aajo te nit ñi doo leen soxlaal du du du ñu ñëw do maanaam di nga doylu daal doo doo doo doo soxla nit ñi di ñëw di la indil loo lekk mu ko wa parce que bima duggé ci biir jàkka ji dama gis ci pegg jàkka ji benn tag tag go xamanteni picci mo fa nek parental bu dafa silmaxa mu gis beneen picci bu mag bo xam mom day ñew ap ap euh, sax ki la moy ciiri ciiri voilà ciiri bi mom su ñewé picci bi day ubbi rek gemmi bi ciiri ji jox ko dogu yàpp bis bu jot te ki mo mënul mënul na comme yeneen ma ne d'accord kon man kii sega mooy wéeru ci yàlla maanaam picc mu ndaw mu pirantal mi ak nii mu mel moo wéeru ci yàlla ba yàlla di ko indil wërsëgam di ko jaarale ci tàgg yu ci céeli yi yu mag yi kon konantoon man war naa man lool war naa man a wéeru ci yàlla man léegi nag maa gën a yey ci wéeru ci yàlla maanaam moom mu wax loolu maanaam loolu compréhension bu baaxul la woon ci ci ci ci ci affaire yi moo tax sëriñ bi yee ko ci question boobu nag ne ko lan moo tax préféré wuloo nekk ci bi nga xam ne mooy joxe ñam que nga nekk picc <laughs> parental bi ñuy jox voilà mu daan ni ah kon tuub na mu daan di génn nag di wut wut tam lu muy lu muy lu muy lu muy lu muy liggéey mu ne kon nag fa yaxtaaju kon nag aajo woon a alfaqiru taalibe bi ilaa xaale ci xaalu saadikun sëriñ bu dëggu yar mi bi boo xamante ne dana koy sànni dana sànnee loolu ci ci jaare ci sëriñ boobu fi duniyaa ci àdduna wa xaalum saadiqin ak xaal bu dëggu tamit boo xam ne yaquduha daf koy jàpp da zalik bihi ginnaaw loolu tamit daf koy jàppe wallaahu bur yàlla xafuurun aji yaatu yërmande la ku bari lu mu yërëmaate la rahimun ku yaatu yërmande la قلت من من قد دغ دغ شيخ عمر رضي الله عنه قد دغ دغ نص يخلنا العلماء بروم خم خمي بان من كيب كو خمنه وجد امنا دجنا كفايه لكو من فك عن الاسباب ولي سبب يلو فالله دغ دغ بور يالا قد اخناه مكو ومال والا لول نك فلا يجوز دو دغان لي احد نيل كين ان يقعر كي مو جيك عن الاسباب ولي سبب اتكالا دي ويرو على الناس تي نيت wo fek mom qaadirun ko am katan la al iktisaabi ci dem fagu ji wa shaba aka sur aka man a bopam ba sur min al halal ci alal jo xamne lol dagan la manam manam manam lolou wax ju bes c'est que édition bi ni mel la day def virgule fu ko warul def day def moomu fu ko warul def et cetera xam nga manam mu ne dafa ne borom xam-xam yi dañoo yexal benn affaire lii maanaam doo ko dégg tamit gis koo gis liggéeyul rek nga nga critiquer ko bu loolu tamit dañuy <laughs> nit ñi ñaari façon lañ dafa am ñoo xamante ne ñoom yàlla moo leen woomal ñoom bu ñu wutul dara tam yàlla dana leen jox ndax amal na leen woomalal na leen ba pare da leen amal da leen yàlla moo def loolu ñoom même bu ñu wutul dañuy am am ñoo xamante kooku nag moom duñ ne ko obligé da nga war a génn dem wuti ji ci tamit. mais ki nga xamante ne moom bu amul fokk mu dem wuti ji maanaam maanaam moom bu toogee fokk day soxla nit ñi di ko indil di ko jox kooku noonu lañ wax. kooku moom day soxla comme day laaj di laaj nit ñi di laaj di soxla ku koy naan woy bis bu nekk mu dem ci kenn waaw dimbali ma kër ga dara néew fa nangam wala yooyu wala ku ku ñëw ci jàkka ji fekk ko fa rek mu woo ko mu ne ko ah taarukàlla boo ci jàppul day tey ndangam ndangam. Mm-hmm. <laughs> ah ñooñu moom ñoo tax ñuy wax mais ñi nga xamante ne ñoom du ñu def loolu ñooñu taxuñu ñuy wax waaw il faut mu leer loolu la loolu la wax nag dégg nga rawatina su dee kooku mën mën naa def mën na liggéey yaram bi wér na amul dara lu kii mën na lépp mais mu toog noonu rek pour nit ñi di ko dundal di dem di wéeru ji nit ñi waaw érémiste hmm. yi tamit dañuy dugg ci loolu hmm. ah oui parce que ci nit ñi lañ soxlaat nit ñi lañuy soxlaal parce que société bi la su dee mën nañu dem defe ji li nit ñi di def dañ ko war a def parce que li ñuy dagg lañ leen di jox rek voilà kooku moom ñi moom ñoo ñoo yem moo tax jullit jullit daal mooy diine l'islam rek kay diine moom rek moo boole ñaari côté yépp d'une ma parfaite mm-hmm. jaamu yàlla waaw te terewul àdduna bi nga defar nga bokk ci ñi ci participer pour mu defar mu avancer bien là-dedans même li ñu doon xool sànq ci internet xoolal lool question yooyu imagine ñu defar internet suñ ko defarul woon ñun lu ñuy def est-ce que jullit ñi njëkkuñu woon wu woon ñom ñu ñëkke défar internet découvrir ko créé yéwu ci affaire yeewu ci affaire boobu est-ce que yelloowul woon hmm? mm-hmm. dégg nga mu ne wacce manam sur min minal halal ci alal gu dagal mabda u mooy tàmbali kulla sharafin gépp teranga fa kayfa ana naka bi hii ci nit ki kon bu suuree minal xaraam ci lu xaram maanaam tàmbalik teranga mi ngi tàmbalee ci suur maanaam mooy ah, am loo xamante ne lu dagan la yow li nga yor yépp lu dagan la ki nga xamante ne moom lu xaraam rek rek lay dunde wala moom day soxlaal nit ñi ba buñ ko joxoon lu xaraam sax tey mu jël kooku lan ngay xalaat ci moom mu ne waqat jaa dëgg-dëgg dikk na an ay tukkee na an isa ci yenent yàlla isa ala nabi na yàlla nekk ci suñu yenent waala yi ak ci moom assalaamu mucc annahu nekk moom kat marra romb na bi muta'abbidin ci benn waay boo xam ne day toog di jaamu yàlla fa qaala law mu ne ko min ayna ta'kul yow fooy lekkee fa qaala mu ne ko inna lii ñeel na ma axan sama mbokk boo xam ne yut'imuni moom mooy dundal fa qaala lahu mu wax ko isa yent yàlla isa ala nabiyina yàlla nekk ci suñu yenente waala yi ak ci moom assalaamu mucc mu ne ko axuka sa ja sa sa mbokk boobu abadu ah, moo a jaamu yàlla mi ngi ko ci yow ay ndax lan maanaam ay li muy tekki li annahu ndax mom kat huwa allazi moy ki nga xamne ne anaka mo lay dimbale ala taati ci ngay mën top yalla wa farag wa faragaka laha ak nga mën am temps bu libre pour lool mom bu la joxul won nga lek do mën dundu bay mën jaamu yalla kon nak kooku jaamu yàlla moo ëpp doole yow sa boss parce que ponk manam fondement bi mom moko fi teg maanaam moom moo tax kon moom bu fi nekkul woon lii du mën a ne sa jaamu yàlla yii yu bari yii du mën a ne yàlla yii mën kon moom moo la gën intaha fa la wax dem wa qaala wax na ash-shaykh ahmad zarruq radiyallahu taala yàlla gërëm fi ta'sis al-qawaa'id wal wa tahsil al-fawaa'id li zawil wusul téereem boobu mu ne mune mulkul abdi mulkul abdi mom jam li ma bi yadi ñeel li nga xamne mo moo ci loxam min araada dunya bok na ci garal garu adduna ghayra mutahaqqiqin lahu ghayru mut manam non la xayru mutaxaqiqin lahu nekkul lo xamantene lu deugur la lu wér la ci mom balli fi nekk inma huwa lol nekkul lu mom khazinun lahu mom moy gardien bi manam moy ki nga xamne mokoy mokoy moy trésorier bi waaw li qasrihi alayhi ngir gàttañ li gi mu gàttañ li ci loolu tasarrufan wantifa'an tasarrufan mu mën a soppandiku ci moom wantifa'an mu mën a jariñ duna ghayrihi walif kenn ku dul moom maanaam gaaru àdduna maanaam nekkul loo xamante ne maanaam li nit ki di am ci affaire àdduna dafa fekk lenn rek la ci moom ça ne pas dire que maanaam que baaxul li muy tekki rek mooy tamit ne ça veut pas dire que nii li mu ci bëgg yëpp dina ko ci am déedéet moo tax xayru mu taxaqan law maanaam nekkul loo xam ne lu lu lu wér la ci moom maanaam mooy lan euh, nekkul loo xamante ne c'est sûr que li mu objectif yi mu am bëgg yëpp ci affaire li muy yoo moom moom moom dana ko ca am maanaam nit ki tey su amee 1000 euros yëpp moom moo ko moom moom ko yelloo kay mu tax pour voilà loolu la moom moo ko yelloo du loolu de lenn rek la mooy moom mooy mooy trésorier bi loolu lay tekki maanaam moom la yàlla jox 1000 euros yi teg ko ci loxoom pour mu war koo denc ba pare nag tasarufan mu ciy soppandiku mu wanti faa am muy jariñ duuna xëy te keneen keneen yàlla joxu ko keneen loolu maanaam kon moom bu jëlee 1000 euros yi. am na mi am na mën bu par exemple bu dee am na kenn ku ci soxla deux cent mu a ah kii da soxla deux cent mu jox ko mooy kon moom ndekete moomu doon deux cent euros yooyu deux cent euros ci biir mille euros yi ndekete deux cent yi moom ko da <laughs> koy xool ci lekk rek di nga course say course ba ngay génn di course. Mhm. di nga jënd ay yëf. Mhm. waaye di nga jënd benn yëf teg ko foofu. Mhm. chaque jour nga koy romb ko lekk doo ko mos a lekk. waaw jàmbur mooy jóge dugg sa kër ñëw toog jël yëf yi lekk. waaw kay. lool la xam ne ni que bii moom moo ko moomoon. moom moo ko yow gardien bi kese nga. yow trésor yi kese nga. waaw kay loolu la. ak moo bëri loolu sama xel la nag mu ne wamin sama loolu moo tax foofee xorrima alayhi ci lañu xaraamee ci moom al iqtaaru mooy muy ngott wal israaf ak muy yàq hmm. maanaam mu nekk ku nay lool ngott di denc rek. Mm-hmm. wal israaf ak tamit muy yàq looloo tax ñu xaraamal ko ci moom parce que moom moomu ko alal ji ko yàlla jox alalam du du alalam da ko ko dénk moom gardien yi rek la ci trésorier rek la kon warul téye ko fekk am na ñeneen ñu ko soxla jaamu yàlla yi soxla nañ ko mu téye ko niki noonu amul droit aussi di ci di ko pasar pasaree di ko yàq xatta mbete adda mu lim rasulullahi ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam fil mun jiyaati ci yim tax nit di mën a mucc mu boole ci alqasdu mooy digg doomu fil xinaa ah maanaam ak jublu ci yàlla digg doomu ak jublu ci yàlla saa su ne fil xinaa moo xam ci jamonoy woomal la wal faqir ak jamonoy ñàkk ñaar jamono yépp noonu nga war a mel wa naxaate tere na sallallahu alayhi عن اضاعه المال ولف يق على الساق يقو نينال كو الى غير ذلك جيم تي ينال يودول يوي فمن ثم مور فوف قال لنا لا ني واخي وون الشيخ سونو سيرين شيخ ابو العباس الخضري رحمه الله نفع الله به نفعنا الله به يالنا يالا جارني تي موم موم مكو واخ ليس شان مير مي نيكول من يعرف تي مير مي ييب نيكول تي من ci ki nga xam ne yaarifu dafay xam kay fi yettu dunia ana naka la àdduna di amee fayu fayu farriquha mu teqale ko innama sha'nu mbir mi mooy maanaam ngir mu tàqali kook moom maanaam fayu mu tàqali mbir mi nekkul ci loolu innama sha'nu mbir mi yépp mi ngi ci man ki nga xam ne yaarifu xam na kay fi yettu imsaakiha ana naka lay téye àdduna fa yumsikuha mu téye ko loolu mooy mooy mooy mbir mi maanaam mbir mi mbir mi mbir mi du ma xam àdduna ne nan ne ne àdduna kat nii la mel àdduna dafa bëri ay lu mën a woraatee àdduna dafa bëri yuy naxaatee àdduna nit ki bu ci préoccupé dafay tax ba du faale du du du du yegg ci yàlla day nekk kiiraay mu daal dina kon naa ba àdduna tàqali ko moom déedéet du loolu mooy mbir mi mbir mooy nga xam noonu loolu ba pare nga ni man nag léegi nan laay xool nan laa koy téyewee ba yor ko tout en préservant sama xol ba nga xamne yàlla rek a ci ne bir bi bir mi loolu ak jofee qaala wax na cheikhu mooy cheikh ahmed zarruq radiallahu taala yàlla na yàlla gërëm ko mu wa zalika te loolu annaha ne dafa melni kal hayya kem ab jaan laysa nekkul asha'nu mbir mi fii qatlihaa ci rey ko innama li am ba des mooy asha'nu mbir mi fii imsaakihaa ci mooy mu mën a téye xayatan xay maanaam ah mooy jaan gi mu mën ko téye comme li kii wax li al-Ghazali wax rahimahullah radiyallahu moom laa doon nekkal keroog bi ñu paree ci yéenteelu buntu mm-hmm. mooy lii lii lii euh, li gën mooy nga fexe ba am àdduna téye ko nekk riche mais xam ni ngay jëfandikoo loolu ba yàlla gërëm la loolu moo ëpp dool loolu moo gën mais li gën a yomb mooy nga nekk pauvre ba pare xam ni ngay gérer pauvreté bi ba yàlla gërëm la looloo gën a yomb loolu moo tax mu ne mooy sagesse bi nekk ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nekkul woon ku riche mu nekkoon ku pauvre bu ko defee mu ne parce que dafa mel ni tey mu joxe exemple bii nii maanaam mooy jaan bi mooy nit ki nga xam ne benn paala bu nekk ak sëtam sët bi xale bu ndaw la sët bi ñun ñu daal di gis jaan ñëw wala jiib paa bi moom xam na ni muy jàppee jaan bi ba jaan bi du ko lor xam na ko xam na ni muy mën a def ba téye jiib bi yépp xam na ko xam na ni muy def ba rey ko ba rey jaan bi xam na ni muy def ba rey jiit bi loolu yëpp xam na ko mais problème bi mooy comme xale bu ndaw bi la nekke la nekkal du def loolu day jóg daw bu ko defee xale bi xam nu mu koy toppee xam ne bu gisee jaan wala jiit day jóg daw moom tamit bu ko defee mu mucc mais su fa nekkee di ko rey xale bi gis ne daf koy rey léegi moom su bëggee rey maanaam su su beneen yoonee paa bi nekku fi xale bi rek nee fi jaat bi ñëw jiit bi ñëw wala jiit bi ñëw mu ne da koy rey jaat bi da koy da koy màtt wala jiit bi da koy fett parce que xamul ni mu koy reyee parce que lan maanaam kon téye boobu loolu noonu mhm. moo gën a yomb mhm. loolu tamit moo nekk ci affaire boobu maanaam le fait que yeneen bi saa sam di yar nit ñi parce que pauvre de toute façon ñi pauvre ñoo gën a bari ñi pauvre ci àdduna bi ñoo gën a bari ñu riche ci kaw loolu kon yonent bi saa sam dafa jàngal majorité bi nan lañuy ñuy affaire boobu rawatina ne loolu moo gën que muy jéem a am alal mu am alal ba pare di wan nit ñi niñ koy gérer fekk ñi riche bu ñu jaaree ci yoonu nitu yàlla yi dinañ ko mën comme ni nga xam ne noonu la daloon ñoom Aboubacar Siddiq radiyallahu anhu seen jamono comme Abdourahman ibn Awf et cetera ñeneen saxaaba yi radiyallahu ci seen ginnaaw ñoom Anas ibn Malik radiyallahu anhu ak ñeneen ak ñeneen ñoom ay ñu riche lañu woon xam nañ niñ koy gérer wane nañ ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam yaroon na leen ba ñu xam ne ñuy doxal waaye nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy majorité peuple bi moo tax yeneen bi saa saa moom ti moom ci boppam mu wan leen ñoom nañu gérer loolu parce que loolu moo gën yomb maanaam looloo tax loolu mooy secret bi ci nekk mu ne wax xadis am na xadis bu ah, xadis bi nga xam ne day wax naan lubsu di ah mm-hmm. yërëg yor yërëg ah, sol yërëg dëddu àdduna bi taxrimil xalaali ci di xaraamal loo xam ne dafa dagan maanaam laysa zuhd la laysa zuhd gis nga ah ok laysa nekkul azuhd dëddu àdduna bi taxrimi ci xaraamal al xalaal li dagan contrairement à ñu bëri nu ñu foog ne lu dagan yi ma ma jënd sama oto bu raket man am sama xaalis jënd ko nga may critiquer lu tax sama auto la maa ko jënd sama xaalis la sàcc mu ko et cetera firiyande wu ma kenn sama étage bu rafet bii maa ko liggéey lan moo tax ngeen bëgg moo kañ koy wut man parce que sous prétexte man nitu diine la c'est pas vrai loolu du yoon te man bu ma ko amee sax <laughs> gaay dama ciy dëkkal gaay amul fu ñu dëkk ñaata nit lay jox dépense ci sama kër googu loolu lañ ma waroon a laaj te même bu ci loolu amul am naa droit bi loolu mooy problème bi kon hadith nee na dëddu àdduna nekkul ci araamal lu dagan wala bi idaatil maali du caageen ci neenal alal innama li am ba def mooy azudu dëddu àdduna antakuna mooy nga nekk mooy mu nekk bi ma fi yadillaahi ci li nekk ci loxol yàlla aw sax nga gën mu gën a wóolu mi ko ci yow bi ma fi yeddi ko ci li nekk ci sa loxo yow li ne ci loxol yàlla ci ay magasin alal ak man man ak kàttan ak sañ-sañ ak mën laa jox lu ko neex bu ko bu la ko bëggee jox yow loolu nga gën koo wóolu te yow li nga yor sa loxo <laughs> parce que yow li nga yor sa loxo xam nga mi ngi nii mais nag xam nga wóolu nga nga gën a wóolu nag li ci loxol yàlla. loolu lay loolu mooy dëddu àdduna dëgg. wa qaala wax na ash-shaykh Abu Madyan. Mm-hmm. nafa allahu taala bi yàlla yàlla jariñe ci moom. nee na ad-dunya ah. nee la. criquet la wara soxaa bopp bi nag bu xaa mooy sopp ko sopp àdduna fa isa qataa bu ñu daggee rasal jaradat bopp soccantal boobu maatat day dee àdduna loolu rek la kenn terewu la nga wut affaire àdduna mais nga sopp ko lañ la tere moo tax mu ne àdduna bu dee soccantal la boo daggee bopp bi day dee léegi kay li ci def terewuñ ko jëlal àdduna mais bul ko sopp loolu lañ la wax bul jaawale il faut pas faire de l'amalgame affaire bi daa war a leer wa qaala wax na cheikh abu muhammad abdul qadir nafa allahu yàlla na yàlla jëriñu bi ci moom lamma su ila biñ ko laajee ani dunya ci mbiru àdduna mu ne axrijha génne ko min qalbika ci sa xol waj'alha te nga def adduna fii yadika ci sa loxo fa innaha lii de soo ko defee kon bu boobaa adduna laa tadurru ko du la lor intaha fa la wax ji wa kullu hadhihi jumal kaddu yi yëpp mu ah phrase yi yëpp day tegtale ala ci ne anna zuhd la luy mbir tey mooy dëddu adduna fii budda ak dëddu fii haa ci àdduna laysa nekkul antar ci haa ci bàyyi ko faf xam déggal li ma wax comprendre ko intaha foofu la yam kalaamu cheikh kàddu sëriñ bi mooy cheikh ahmed zarr radiyallahu anhu summa qaala mu daal di topp daan ne az-zuhdu ak dëddu fi fi shay ci mbir barudatuhu mooy mu sedd nga sedd nga dindi ko alal xal ci xol bi xatta laa yotabaru mbéte dee doo bàyyi xel fii wujudihi ci amam wala fi adamihi du caagan ci ñàkkam fa min sàmma ci foofee nag xaala ca la waxee ash-Shaaziliyu imam ash-Shaaziliyu radiyallahu anhu nafa yàlla na jariñe allah bur yàlla bi ci moom wallahi du giñ naa ci yàlla ne laqad dëgg-dëgg azamtuha màggal naa ko ida zaatu azamtaha magal nga ko iza zahatta bu fekkete ne dëddu nga fi ha ci mum aduna qala waxna na shaykh sëriñ bi moy mooy shaykh zarruq rahimahullahu taala qultu dama ne yaani li mu ci djublu moy az-zahiru li feñ li anna al irad ndax dëddu anha wëllif ko mum ta'zimun laha magal ko la wa ta'zibun Ah, ah, li zahiri bi tarkiha wa ta'dhibul maanaam ak bànneexoo la ah li zahiri ñeel biti bi bi tarkiha ci bàyyi ko wala ba mbugal la kama ashara ilayhi comme ni nga xam ne noonu la ko junjee ibnul arif fii majalis yi rahimahullah ci jotaayam wal xariiri ak xariiri mooy fi maqaamaati ci maqaamam maanaam daal mooy àdduna bés boo nee dama koy dëdd dama koy dëdd dama koy dëddu ngir jëmmam rek mooy màggal nga ko mooy da ngaa jàpp ne lu màgg la moo tax mm-hmm. waaye loolu la wax ni waaw moo tax mu ne maanaam zahir maanaam moo tax ñuy wax waaye waxuñu la nga du du wëlbati kii lépp nga bàyyi lépp mu ne waqat qaala aydan wax na ba tey nafa allahu yàlla na jëriñ taala bur yàlla bii ci moom mu ne raaytu gis naa as-siddiqu abubakar as-siddiq radiyallahu anhu fil manaami ci gént fa qaala lii mu ne ma alaamatu màndargay xuruju génn ko xubbi duniyaa sopp àdduna minal qalbi ci xol mooy bi zilliha ah, ah, mooy ci mu torox indal ah maanaam mooy wàcc gi àddunay wàcc indal wujud indal wujudi boo ko amee wa wujudi raaxate ak amuk féex min haa ci moom soo ko ñàkkee ka xaali saxaaba comme xaalu saxaaba yi radiallahu anhum yàlla yàlla gërëm leen is ndax ñoom lam yan yanzuru musuñoo xool ilayha jëm ci àdduna indal faqdi bañ ko ñàkkee wala shagalathum te musu leen ah yittelo andal wujudi bañ ko amé mm-hmm. est-ce que xam nga li wax manam dane dafa gént Abubakar Siddiq radiyallahu anhu muné ne ko gi wan ni kii dafa bëgg aduna manam ne bëgg aduna dañ na ci xol moy soko ko dula manam do do yëk ne da nga da nga da nga bëgg doo yëg ak ak ak ak ak naay jàpp rek ne am nga jeex na du la préoccupé wëlif lu baax parce que ñi bëgg àdduna yëpp bu ñu xësee ba commencé am alal dangay gis seen wala ñu xam ne fii maanaam loolu da leen préoccupé ba ñu bañ a jaamu yàlla wala yu mel noonu mu am tamit beneen bi mooy boo ko ñàkkee maanaam doo ko doo ko sentir ci sa xol maanaam ne da ngay yëg ne am nga fiix daal manam ñak nga ko amoko wala heureusement ko awuma sax luma fi nek li gérer wala jeex na mu ne loolu mooy comme sahaba yi radiyallahu anhum noonu lañ meloon moo tax ñoom doonuñu woon xool àdduna bi ñu ko ñaké nekku ñu won nek la quête perpétuelle du profit déedéet quête perpétuel des biens matériels nekku ñu ci won nekku ñu won tamit nekku biñ ko amé itam préoccupé wu leen ba ba duñ jaamu yàlla imagine ki nga xamantene ne alal ji mu am motax par exemple mënatula julli heure kooku mooy bëgg na àdduna mhm. moo tax alquran nee na ay góor lañ ñoo xam ne laa tulihim du leen yitteloo tijaaratun ak yaxantu mhm. mooy commerce wala bay am du caagan jaay am zikrillahi wëlif tudd yàlla mhm. wa iqaami salaati ak taxawul julli wa itaa zakati ak joxe azaka lu tax yaxaafuna dañoo ragal rabbahum ah, na ah, yaxaafuna man dañoo ragal bis boo xam ne tataqallabu day jàllar bi ko fii ci bis boobu alqulubu xol yi wal absaaru ak bët yi yawmal qiyaamati la ragal yàlla la ragal moo tax duñu du seen alalu àdduna du leen préoccupé ba tax duñu julli ba tax duñu heure julli dañuy dem julli bàyyi seen alal dem julli ci et cetera seen commerce bi bëriw liggéeyukaay bi et cetera azaka tamit noonu dañ koy joxe amul ne woy su ma joxee sama azaka sama interaction bi du ma ko mën a def déedéet <laughs> moo tax mu ne wa maa qaala alquran waxul ne laa yabi'una duñu jaay wala yattajiruna te duñu yaxantu waxul lool de dani loolu moo leen di bañ a préoccupé ba tax duñ ko mën a mais dinañu jaay dinañu yaxantu dinañ wut alal mais du leen préoccupé ba duñ jaamu yàlla wax at dëgg-dëgg addabat yar na allah bur yàlla al aghniya away woomal yi bi qawlihi ci waxam ji mu wax moom taala borom borom bu kaw mi mu ne wala tutu bu leen jox as-sufahaa way deseñ am waalakum seen alal ñi nga xamante ne dañoo man dañu seen seen xel dafa xaw a des bu leen leen jox seen alal mooy mboole mu képp koo xamante ne buñ la joxee alal yi fi ñàkk fayda nga ci def comme xale yi xale yi boo leen joxoon alal tey moo tax xale amuloo droit même bu amee bu bu nekkee milliardaire amul droit amul ñu droit bàyyee ko mu gérer ko parce que xam nga lu tax parce que daf koy jël di ci dem di ci di ko dépenser dépense bu inutile wala dañ koy gaaw a nax hmm. moo tax tamit jigéen ñi nga xamante ne tamit noonu lañ mel tamit kenn du leen jox seen alal dañ leen koy gérer ak nit ñi mag ñi sax ah même mag mag boo xamante ne dañuy gis muy def yu ñàkk fayda ci alalam. dañu koy nangu dañ koy nangu obligatoirement wutal ku ko ko gérer voilà voilà kooku la kon yar na borom alal yi ci loolu mhm. waaye wa addaba mu yar alfuqara way way way néew yi doole maanaam ñi nga xam ne amuñu alal bi xawli yi ci waxam bi subhaanahu gàcce ngàllaa moom moom nee na ko wala naw bu leen xemmeem maa laala maa alal di nga xam ne fa faddala gën a leen ko allahu yàlla bi ci moom ba'dakum lenn ci a la ba a kaw leneen ni aaya bi mu njëkkoon a tudd sourate Nuur la nekk aaya 37 aaya bi ci des sourate Nisaa juróomeelu aaya bi aaya bii nii ñu mujjee tudd sourate Nisaa la 32e aaya bi wa qaala summa qaala topp mu ne wasalu na ngeen laaj allah bur yàlla min fadli ci ngëneelam laaj leen yàlla rek ci ngëneelam waaye bu leen iñaane bu leen di iñaanente ah mu ne wa zalika te lii laa yaqtadi ah tamanniyan maanaam du du waral ak tamanniyan ak mem ak kër wala waqtan du caageen waxtu fa lazima kon war na iltizaamu kulla iltizaamu saxoo kulla ma lépp loo xam ne amara allahu bi yàlla digle na ko lépp lu yàlla digle rek dafa yelloo ñu daal di ciy taxaw su qaala topp nag intaha fa la wax ji yam su ma qaala topp mu ne ma zamma ma zumma àdduna maanaam kenn du ko ŋàññi laa ŋàññiñu ko laa li zaat yi ngir jëmmam maanaam astaghfirullah mazuma lépp loo xam ne ŋàññi nañ ko te dañ koo ŋàññi laa li zaat yi te jëmmam taxul kat yum daxu deef na ko tagg laa li zaat yi te it jëmmam du tax dégg nga wax mhm. loo xamante ne dañ koy tagg pas par son dañ ko tagg parce que dafa am benn affaire bu ci ñëw mhm. maanaam dafa am benn circonstance moo tax ñu tagg ko mhm. wala événement wala attribut yu muy mën a yor moo tax ñu tagg ko mhm. bu ñu koy ŋaañ tamit dañ moo tax ñu ŋaañ ko bokk bu ñu koy tagg mëneef na koo tagg tamit mais bu ñu koy tagg tamit duñ ko tagg ngir jëmmam mhm. ça voilà comme tey euh, maanaam àdduna comme ŋaañe ko ngir jëmmam moo tax def na ko tagg tamit léeg-léeg mais bu ñu tamit du jëmmam mooy tax waaw mooy nit rek nit nit nit tamit c'est pas parce nit la moo tax dañ koy tagg mais parce que dafa baax moo tax ñu koy tagg nit ki noonu nit ki c'est pas nit la moo tax dañ koy ŋàññ parce que dafa bon moo tax ñu koy ŋàññ loolu moo tax mu ne mu ne kon euh, wa minhu te ci bokk na ci loolu rut ba tat martabay wujudul maal amuk alal wal xaa wal hal wala ah, mhm. manam alal ak eta bu bu bu bu rafet war riyaasatu aku kilifteef wa zalik ak yu mel mom wa wala bok fele mu nek wal jah mu nek daraja mhm. ak kilifteef ah alal yoy yep boko amé manam poste bu mak tiitër ak ah mhm. yoy yep kenn du nga ah kenn du ko ngagn ngir jëmmam mais kenn du ko tagg tam ngir jëmmam ndax yëpp mi maa dañoo bokk ci nga xam ne laysa nekkuñu bi mas mumin yi ñu mën a ŋàññi li zaati ngir jëmmam wala ma moo mënefu la mënefu ci ŋàññi tagg benn fii zaati yi ngir jëmmam bal li fi nekk yox ma du def na ko tagg wayu zammu wala ñu koy ŋàññi li yoo yoradu la ko ñeel li ko gaaral wa li zalika ngir loolu nag moo tax zamma mu ŋàññ sallallahu alayhi wa sallam yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ŋàññoon adduna adduna bi qawlihi ci wax bi mu doon wax naan adduna adduna rek mal'unatun dañ koo rëbb ma lu ñu rëbb moom maa fi xaali ci nekk wa madaxahaa mu tagg ko tamit bi qawlihi ci waxam bi mu naan fa ni'mat aka baax matiyatul mu'minu alalu jullit voilà yenent bi saa tagg na ko ci benn côté ngàññ na ko ci beneen côté wa asna te tagg na bàkk na subhaanahu gàcce nga laa maama buur yàlla wa taala te kawe na kawe ëpp xelu mindeef bi ala qawmin ci aw nit yoo xam ne talaboo sàkku nañ ar riyaasati dunyawiya ak du diiniya bokk a riyaasati maanaam ak kilifteef ak diiniyatu bay ko jug diine is qaalu bañu naan wajal naa yàlla yàlla nga def ñu lil muttaqiina ñeel ñi ragal yàlla nga def ñu imaama ñu nekk seeni imaam ñaan boobu noonu yàlla dana tagg bi naan waaye baadu rahman da dina suna bokk na ci ñaani fi ñu jeexal mu ne rabbana hab lana min azwaajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqiina imaama ñu ñaan nekk ñi nga xam ne ñoom ñooy imaamu ñu ragal yàlla yàlla da na a tagg ngir ñaan googu xam nga kooku kilifteef la bëgg mais est-ce que dañ koy critiquer déedéet dañ naan dañ lay tagg ndax lan ndax li nga bëgg maanaam ndax poste bi li ci nekk moo tax le fait que nga nekk imam pour ñuy ragal yàlla loolu mooy yow da ngay ragal yàlla da bëgg a nekk ragal yàlla ba ne ña ca bokk te ña ci nekk imam waaye loolu soo ko bëggee dangay ngay lan fokk nga jaar ci loxol ñu njëkk ñi moo tax mujaahid rahimahullah aaya bi noonu la ko doon firee waj'alna lil muttaqina imaman mu ne ay waj'al lil imama lana waj'al lil na lana imaman loolu la ko doon firee maanaam mooy li tekki mooy dañuy ñaan yàlla ñi ragal yàlla nekk suñuy imam loolu la wax ji di tekki loolu mooy la loolu mooy li ñu doon wax nga jaar ci loxo sëriñ si loxo nitu yàlla yi mooy boo fexee ba ñi nga xamante ne ñooy ñi ragal yàlla nit ñu baax ñi ñooñu ñooy say imam yow da nga leen di topp yow bi nga nekkee xale ñoo ñooñoo nekkoon say imam wala bi ngay doog tàmbali ci yoon bi ñooñoo ne say imam boo demee ba mat après yow ñeneen ñii ñëw yaay nekk seen imam ñi ragal yàlla ñi ci des ñaan nga daal di mën a dëggu ci yow mu ne waqaala fa kaana nekkoon na ibnu omar abdullah ibnu omar radiyallahu anhu ma yaqulu daan wax naan allahumma yàlla yow buur yàlla mi ci tur yu màgg yeeg melo yëkkati koy ijaal naa yàlla nga def ñu lil muttaqina ñeel way ragal yàlla imaaman ñu nekk seen imaam qaala malik imaamu malik rahimahullahu yàlla na yàlla ko daf daan wax naan sawaabul muttaqina yoolub ragal yàlla azimun lu rëy rëy rëy la laa ilaha ñi ragal yàlla yool bu rëy la di fay fa kay fa lan ngay xalaat kon bi imaamihim ci seeni imaam وقال وخنا صلى الله عليه وسلم يننتي صلى الله عليه وسلم دانا اسالوك ماغ لاي نيان رحمتان يرمني بو خامني انا لما دانا امي بها تي موم شرفا تيرانغ كراماتك سي تيرانغ يو ماغي في الدنيا تي ادنا والاخره تك الاخره وا آه. وقال واخنا لذلك الرجل ني بوبو واي الذي بيغا خامني قال دا فا واخون دي رسول الله نيل ندوال يالا صلى الله عليه وسلم دولني تكتلما على عمل تي جف بو خامني ان عملته سومكو جفي احبني دنا ما صوب الناس نيت ني قال منكو ازور ددول في الدنيا تي ادنا يحبك دنا لا صوب الله يالا بو بغي يالا صوب لا داغي ددو ادنا مي تي انام دين لا واخون سانك wasat waaye dëddul fii ma ci lépp li nga xam ne nekk na fii ay di naasi ci loxol nit ñi yoxe bu ko dana la sopp am naasu nit ñi mhm. nit moom boo leen soxlaalul dara rek mhm. doo leen laaj dara doo leen laaj benn alal doo leen laaj service doo leen laaj dara léegi ñu bëgg rawatina boo leen amalee njariñ mhm. waaye su dee saa yoo tourné laaj leen service kii dañu waaye kii dafa soof quoi c'est que kii dafay waaru quoi moom foo ko fekk mi ngi laaj ay gi عليه السلام كيلي تي جبلو ابو بكر الصديق رضي الله عنه من اجعل استغفر الله استغفر الله يوسف عليه الصلاه والسلام مرام من عليه السلام يالنا موت نيك تي موم مانام مو يوسف رضي الله عليه الصلاه والسلام من دفن اجعلني يالا دف من ايه دفني بور بي def ma ala khazain al ard ci magasin souci moy trésor terrestre tek ma ci ministère des trésors terrestres bàyyi man maa koy gérer nii nag man xafizun ku man ku wóor laa bay sàmm alalu réew mi alimun ku am xam-xam laa am na compétence moo tax lii mooy critère bi ñuy tànnee salarié mooy est-ce que wóor na d'abord est <laughs> su ma ko joxee sama entreprise du ko yàq mm-hmm. est su ma ko fi bàyyee dem dina def liggéey bi waaw nga léegi nag est am na xam-xam mooy ñaareel bi est-ce que compétent na am na compétence bu mën a defar liggéey bi ñaar yooyu bu ñu àndee ci c'est un bon salarié waaw moom la wax buur def ma parce que man am naa ñaar yi am naa expert am naa kóolute gi ba pare am naa expertise laa ila ghayri zalika jëm ci yeneen yi du lool kon nag fa lazima war na i'tibaru nasabi ñuy xalaat askanale gi ñuy askanal mbir mi wa taxqiiqu ak xóotal al mbir mi mm-hmm. ibaaxatan buñ ko waree daganal ñu daganal ko wa manaan buñ ko waree tere ñu tere ko mm-hmm. waaw mm-hmm. dégg mu ne wal muhaashaat li ñu lay tere nag di la ko soriloo aqrab loolu moo gën a jege li salaamati daifi ñeel maanaam mooy sori fexe ba ba bañ a jege yooyu yëpp moo gën li salaamata dayef ngir mucc ki nga xam ne dafa woyof maanaam daa woyof ci xolam wala ah maanaam daal moom gëm yàllaam dëgg ragal yàllaam yéggagul fenn fi min baa bi doof yi ndax dafa woyof moo tax laali xalalin waaye du ne ah, rëq rëq rëq la wala problème boo nekk la fii zaatil xakam ci jëmmi jëmm fii zaatil xokk mi ci jëmmi jëmmi àtte bi du lolu moy problème bi maanaam kon du ne nit ki buñ ne ko ah mooy tindikul li parce que da da lay tax da bëgg aduna lolu ben étape la ci tarbiya bi par exemple nga gis koo xamante par exemple euh, euh, da daan liggéey 35 euh, heures mu dem ci benn série série bi ni ko dox léegi day liggéey day liggéey 20 heures kese c'est pas parce que liggéey 35 heures problème la du lolu mais c'est parce que c'est parce que moom moo woyof bis buy liggéey trente cinq heures trente cinq jamais xol bi tàqali kook àdduna moo tax kooku moom la nekk problème du problème bu ñëpp kon du àtte bi ci boppam mooy problème bi ki nga xam ne tout le temps mi ngi marché ba tout le temps mi ngi wut e, e, e, mu dem ci sëriñ sëriñ ne ko léegi bon vendredi bu ko liggéeyati samedi tamit noonu maanaam dana ko dana mu ne maanaam mu ne ko jeudi ndax guddi àjjuma day ñëw. kon jeudi na nga préparé jeudi journée bi bu liggéey vendredi bu liggéey yeneen jour yi bu la mune liggéey par exemple bu ñëwé ba ci kanam mu ne ko wa légui mën ngay liggéey tous les jours vendredi da heure julli mom ak heure hadara par exemple bu ko liggéey parce que koku manam ci défar gi la ni ki mën nako ko lo liggéey mu yokk ak alalam ak yeneen mu koy moytu am amu alal yi ngir pas ngir problème bu nekk ci àtte mbir mi mais problème bu nekk ci nit ki ci jëmmi boppam ngir na dafa woyof état d'âme bi mu am martaba bi mu yegg maqamam moo gàtt pour le moment pour loolu ndax is ndax lan al aslu cosaan ni ci mbir yi mooy al ibaaxatu mooy ne dafa dagal wa min sama foofee xaala la waxee moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam li abi zar ñeel abu zar radiyallahu bi mu bëggee ñu def ko kilifa mu nekk ben autorité mu ne ko innaka naka yow rajulun da'ifun yow nit nga ko xamantene ne ah, da nga woyof yow da nga faible kon nak wa innaka yow de inta tulub bu fekke da nga sàqu al imarata klifte wukil lak wukil wukkil ah, wukilta ilayha dañ lay dañ koy jël ya-, yan ko yan lako mu dis ci yow wa in utitaha waaye buñ la ko joxe min ghayri mas'alatin te laajoo wa anta alayha yal dana la ci dimbali te li fof xam kon comprendre lo intaha fi la yam ñu tëj fii lii lu am solo motax moo laaj nguur boko defé ñun suñu problème yépp moy lool système démocratique bi ñu yox moy suñu problème xam nga lutax parce que gaay dañuy ñëw di di di di di briguer mandat bi dama bëgg ngeen falma gis nga lu lu candidat bi ay ay ay lu mu man man man lu mu xam-xam-xam lu mu compétent compétent compétent lu mu ànd ak ay ambition yu wóor yu wóor yu wóor et cetera toppal loolu qualité yi nga mën a jox yëpp kuy jiite buñ ko faree tuuti lañ ciy teg nga gis ne affaire yi affaire yi daanu ci kaw mu commencé sa affaire yi ëpp ko doole crise bi ñëw et cetera topp ko ci président yi ngay gis yi yëpp

voilà buñ la wóoloo ne la am yow lañu ni ko jox bokkul ak bokkul ak yow booy dem briguer mandat bi ngeen def voté après ngeen xool day gis borat affaire bi day diis ci sa kaw affaire du dox loolu mooy ñi nga xam ne dañoo faible am na ñi nga xam ne ay nitu yàlla dëgg lañ ñu mat lañ ñoom xam nañ ni lii buñ ko demul briguer ko caaxaankat yi ñooy ñëw pour briguer mandat bi kon bu boba te ñooñu la sal bu boba boba mom day dagal mu dem def def ko lool parce que ngir lan ngir mëna tek teg mbir yi ci ray yi waye problème bi moy ñi ñi am bobu bari wuñ ñi nga xamantene loolu rek a tax ñu jox pour wuti ji poste yi ñooñu wuñ li ëpp ci ñi wut poste dañ koy wut ngir alal ngir poste ngir ngin et cetera ja wala yooyu ngir tur et cetera mm-hmm. lool moy problème bi mm-hmm. mais bu doon dañ koy wut ngir bëgg. yàlla kese bëgg mbir yi dox kese bëgg diine ji avancé kese bëgg nit ñi nekk ci jàmm kese bëgg réew mi avancé kese loolu rek yitteel leen ñoom dara dara dara bëgguñu ci dara ah de telle sorte que buñ gisoon keneen koo xamante ne moom mën na jouer rôle boobu muy taxaw ñoom dañuy jàppale koo pour kooku falu de telle sorte que anam googu bu doon lool la konontoon bu ñu leen falee kon yëpp day avancé hmm. mais loo ci gis réew yi nga xamante nit ñi ñoom gën nañu jege modèle bobu gën nañu jege idée bobu ñoñu ñoy gëna avancer sax ñi nga xamante nit ñi <laughs> dañoo gën a sori idée boobu so seetloo société occidentale même bu dee ñoom li dal ñëpp leen dal mais ñoom ils sont plus patriotes ci côté bobu ñoo tane ñoo tane mais batay baxul te gis nga crise crise ci kaw crise crise ci kaw crise léegi sagam loolu mooy ci mbiru àdduna lan ngay xalaat ci wàllu diine koo xam ne day bëgg ñu def ko sëriñ bëgg ñu def ko kilifa looy xalaat ci wàllu diine ko sagam lii mooy ci mbiru àdduna bi nga xamante ne moom lañ la wax sànk mal onatun mal onan ma fiha illa zikrullahi wa ma walaha yeneen bi saa na àdduna dañ koo rëbb li ci nekk yëpp dañ koo rëbb ba mu des tudd zikrullah tudd yàlla ak lu mu ne wal ilm wal ulama ak xam-xam ak boroom xam-xam yii la yàlla rëbbul ci àdduna segam segam loolu <laughs> nga gis segam loolu ci affaire àdduna boo fa laajee kilifteef amoo intérêt bu maanaam amoo intention bu baax nga briguer mandat pour titre àdduna segam loolu ci ngay amee ay problème lan ngay xalaat ci kuy briguer mandat wu diini te amul intention bu baax bëgg tiital rek tax bëgg ñu def ko sëriñ tax bëgg ñu ijaasaal ko wala mu xaddam la léegi tax et cetera yal nañu yàlla sàmm waaw ñu yem foofu kon wallahu a'lam wa sallallahu nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma wa salamun ala mursalin